point de presse bi euh, tey li ñu fi indi moy d'abord échanger ak yéen ci participation au ASC Ville de Dakar au niveau des championnats d'Afrique des clubs Donc, ni ngeen ñuy suivre basket bi comme nañ ASC Ville de Dakar ñetti at yi yëpp mooy gagné championnat ci walu jigen ñi au niveau national donc ñu xalaat ni jaaduna que tay ASC Ville de Dakar dem ci benen échelon donc pour dem ci lolu nag donc euh, il fallait que nous concerté ñun ci bureau bi d'abord on s'est concerté am ci avalu bureau bi dem xol tamit ak autorités yi nga xamni ñoo ngank mairie bi waxtaan ak ñom ñu d'accord appuyer ñu accompagner ñu pour ñu dem sur le plan africain donc bañu déposer suñu candidature FIBA Afrique validé ko donc euh, ñu jël disposition yépp tamit pour participer ci ci ci jo ci compétition bobu wara am ci Mozambique Maputo du 9 au 18 donc euh, parce que si nous gëm le basket Sénégal dafa Sénégal a gën niveau africain pour moi, il faut que club yi nga xamni ñoy Sénégal yi à la compétition au niveau de l'Afrique parce que pour ñun anomalie la pour que Afrique euh, Sénégal clubu Sénégal à lu ëpp fukki at compétition donc euh, donc il faut que nous oublions. parce que Sénégal de basket la club club yu mag fi donc la ren Sénégal participer donc si FIBA Afrique décidé ni organiser donc ñun jël participer donc nous nangul une ko fédération bi nangul nous porter aussi donc c'est l'occasion de remercier le président de la fédération action son secrétaire général Nous avons aussi appuyé sur le plan administratif pour que quand même ñu une bonne participation ci ci manifestation donc di ñaan tamit gars ñu ñaanal ñu que au fa représenter dignement le Sénégal parce que ville de Dakar bu c'est le basketball sénégalais qui sera représenté donc nous euh, dem certes c'est la ville de Dakar mais c'est le Sénégal qui sera là-bas donc occasion le donc pour ñun ñu yor drapeau Sénégal Bobu, mun ko hissé ci kaw donc lool mo doon solo wote bi pour waxtaan ak yeen ci ci ci loolu donc damay tontu ci question yi wa wa budget bi bañ ko xaa bañ ko xaymee ci walu jënd billet d'avion yi ñuy yob ak diñu indi ak prise en charge délégation bi fofu ak assurance yi nga war a fay ak équipement yeeg yëpp donc budget bi ci 45 millions la toll donc ci budget boobu tamit yëpp nag c'est la ville de Dakar mairie Dakar ñoo ko jël en charge donc ñoo ñu jox les moyen pour ñu dem ci donc je pense que loolu lu ñu rafetlu la te loolu aussi dafa wane volonté wu ki nekk ci bopp maire bi muy le maire Barthélémy Diaz ak conseil municipal bi yëpp yëg-yëg ak bëgg bi ñu bëgg sport parce que tamit aussi priorité yi bari na mais le fait que nous nangu accompagne sur le plan africain au-delà de ce defal si nga sur le plan national si saison bi donc je pense que une vision là donc je ko remercier donc mais téwul aussi une ngi ay ressources complémentaires bind nañ état Sénégal au niveau du ministère et am nañ yaakar ni bala ñuy dem peut-être dinañ am ñoom sen appui comme ni mako waxé Nous rek demaluñu rek mairie Dakar Sénégal lañuy démé donc nous ñu Sénégal je pense que ministère bi nga xam politique sportive

moom it ñëw na renforcer effectif bi fi donc je pense que am équipe boo xam ne daal am nañ yaakaar ne sur le plan africain war nañ mun a jonganteek ñi ñu fay fekk ba mun jël ndam li parce que dañuy dem foofu demuñu pour def tourisme demuñu pour def découverte dañu dem pour wuti ndam li et que incha on a pris les dispositions qu'il faut pour que suñu yeggee foofu aussi dinañ wane ni Sénégal de basket la. Hein? objectif bi mooy waaw. mooy loolu mooy dem daal jël ndam li indi <laughs> inshallah voilà. merci c'est moi qui vous remercie hein. vous remercie. merci beaucoup.